eau royale buuru ndox yi am na huile am na AO kër ni jaay Sénac kër ni jaay Sénac am na qualité c'est garanti kër ni jaay Sénac nga ni ma Bienvenue chez WinWin Partners où l'excellence et l'innovation font que vos projets immobiliers deviennent une réalité. Offre découverte, chambre plus petit déjeuner à 90 000 francs, Azalai Hôtel Dakar, Kurgi, seine Cet été, venez avec vos enfants à Onomo Hôtel Dakar du lundi au vendredi pour partager avec eux des moments de pur bonheur. Cours de natation avec un maître nageur, ambiance et nourriture à gogo. Chef mot traiteur, nous amusons vos bouches. Amana African Style. Votre marque de maroquinerie de luxe. Maggie Event Shop, la meilleure adresse pour vos besoins en événementiel, tenues et accessoires des mariés, tenues de bureau et autres cérémonies. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Soud, Sénégal, Rijal, Nabo Création, Maktoum, Le Shop, Shop, Minawa, kalmise Uma Fashion,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 11 11. MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Grande Royal Chic, Adam Soba Nedi, Protam, Moselle, l'authenticité africaine. Madeleine Darabi, Lady Mouna, SD Jewel. Gak sama imeti Yukatu malu tisfi Bana nga manyebil Mutamalala belil Meligala ci sama kolbi Musuma yaglu melni Firi samay laaf léegi maa ngi naaw ci àjjana ju neex ji Suma yeglu du merdier. Sortez madame! madame. dama madame sortez s'il vous plaît madame. madame madame. Eh, madame. appelle-moi la sécurité. sécurité. madame c'est pas comme ça. appelle-moi la sécurité sécurité. yaay. waaw il faut se rendre à l'évidence. Hmm. Rachid du mus a takk Fatma. te du man waxoon naa la ko naa la Rachid dafa reew ba pare dëgër bopp. graw je gère. naka nga ko mën a gérer loolu. mais amul solo Rachid nanguwul mais Khalil mu ngi fi comme mais am na beneen problème bu gën a mag bu ñu war a ban problème. Mayoro yow gis nga ne bu mu yëgee li xew xolam dafa jeex est-ce moom xalaat nga ne bu xamee ne ku taq ci yow dina nangu mu jege ko. yaay dalal sa xel. gis nga ma yoroo xam naa baax ni muy fonctionner. te léegi mu am ay nouvelle am parce que daf muy bëgg jege pour surveiller ma. waaw moom mbaa du xëy xëy rek ne la demal ma dem. <laughs> non non ma yoroo daf ma amal njariñ. comme ni mu ko amalee njariñ tant mu ngi may mën a utiliser. Hmm. day wax rek mais du mu sa bàyyi. waaye dafa am lu nga xam ne waruñu koo négliger te du ñun ñoo sipsane woon xale sans vraie preuve ah. yaay moy ce que mom la hmm. et j'en doute du que nangou ma su kay ah peut-être que yo dina la défal li nga bëgg waaw waaw gagnant gagnant bon plus de peur que de mal instant bi mom trop mais il faut ngeen parce que soxla na ko dina si génn bien sûr madame dina parce que très sincèrement nag ba muy egsi fii état bi mu fi ñëwee ñu ma dajal yërëmuñ ko yaakaaroon naa ne sax dina dina def hémorragie interne mais heureusement il def l'a ci hémorragie. son état est stable. d'accord et là maintenant là là. Euh, quelques cassés fractures quelques traumatismes. il faut que nous gardions ko fi quelques jours par mesure de sécurité pour nous permettre de me récupérer pleinement parce que sinon hein, nous sommes trop. ok d'accord merci docteur. Et, euh, j'espère que prévenir ngeen ay waajuram. Euh, oui bien sûr bi je vais un appel Je vais une dernière chose normalement faut reposer mais finalement, je vais moom xalaatuma koo hôpital bi yéen rek yéen a mën ok d'accord merci docteur. Merci. yow lan ngay ràppe ràppe nii dafa mel ni da hôpital nga jëm. ak kay hôpital laa jëm demuloo nag. lu tax dew hmm. ma. Youssou suñu doom moo tëdd ci hôpital bi. kooku bokkutul ci ñun ñun ñaar ñoo ko jur. xam. Youssouf li may santé ci suba ba léegi pressentiment la dafa mel ni dañuy xot sama xol bi Raphaël mii maa ko jur mi ngi nee tëdd hôpital moom ak ay xaritam kese ñoo fa nekk mu mel ni amul famille. amatul famille nag. ndax keroog bi mu taxawee sama digg kër gi def yéema ci laa ko suur wàcc ko beddi ko ak li ma def ci moom mi yëpp amul dara lu may faye waxatuma nag tey mu rey nit teg ci mbëggeel gi amoon ci man cofeel mu tuuti tuuti dañ na ba jeex ci moom alaaxira sax buñ fa daje yow daal nii rek beddi naa ko suur naa ko dugg na fi génn na fi yow àddina dina la yar ah kon danga nga commencé nag di ma défier léegi comme sa doom waaw damay dem hôpital damay dem. yow da nga dof léegi wala lo lenn dina la ko wax dotuma la permettre nga may séparer ak sama njabot ya nga dégg bax luma la wax. dom mind du deewee àll dom bi may ndayam te ma ngi dem tok ci wetam ci hôpital ba ma xol nak lo ci man li ci dess je m'en fous. yow ma ngay waxal yow de je m'en fous la wax. xajal ma yow dama dem. yalla nga torox. endroit yi may convoqué doy na waar. may def amatuma fu ma waxee ci biir kër gi soxna Bintu mel ne dëmm sama kaw fu ma tourné yem ci moom jànq bi moom fenkat la wóolootuma sax wax sama ni sa papa ñun ñëpp lay surveiller. je sais même man moom mooy espionné sur moo tax nag nga war a def attention. ne t'inquiète pas xam naa paa bu baax. تاني طيب، رشد لويك يا كارم أبو كنت أمنا لو كنت نيخ جيجي بابي لا ياغ بوغ أمنا لو خامي تانك ما نجي دوم دومو كما سنانكو ما يورو وولو مكو بني يوم إي ريان كو ليدي كنا يدم دي دوخان دوام سخ أف مدون تريني لو ني نياك بحرك وايا يالا ديكنا بس نيني نيني نيكتو رشد أك فاطمة Amédine a bien compris que Rachid nous ko forcer parce que ndawam a la yow nag la nar a def ta ça m'ennuie un peu mais Alia ak Rachid. Non Alia? fiancé Rachid comme que à ce point examiner cas de plus près. xam nga sais tu restes concentré elle n'a aucun rapport avec nous Jarou sonal Jarou gagne, Jarou nga koy embarquer ci lii yëpp di perdre sa temps Mon mu que ak Rachid moo ñu arrangé mu leer ma je n'aurais pas à te jeter dans la gueule du loup comme ça. t'inquiète damay wax nii rek. ma ni nga concentré wu lenn rek moo am solo instant yi gis nga Médine pouvoir bii muy yóotu ba mu jaral ko muy ma mayorom boobu noonu ñu fexe ba mu bañ ci jot. Amady laa bëggatul mu amati dara du ma ko mayeeti dara. maman eh tranquillise toi xam naa sama wareef maa la ko promettre papa dootu la blessé. def na ko ba pare sama dernier terrain yi ma dese woon yi ma sama papa joxoon ma dénk ko pour mu gérer ma samay business mu nax ma. jaar ci suuf dem jaay ko sa Mayorola mu tabax ci ay complexe d'appartement la xaw je sais mais calme-toi. sa bu ma Amédine ay way ay way sama do ay way di lan la. rafet ba tata sama tata dalalal sa xel day nelaw médecin bi nee que il est plus en danger. Hmm. dina yeewu léegi Inshallah, dafay reposer ko rek. sama doom li ngay wax ni ba leer na la. Suma ma on woon du ma sax bàyyi médecin bi mu dem xoolal kaay toog ma may ndox toogal kaay kaay toogal agression lañ ma wax agression bëccëg ndara kam loolu nu ma nee ne wax ma sama doom lan la ci benn koñ bu rukkee nañ ko fekk ay xale ñoo ko gis après est-ce pare si nañ woote ñu indi ko fii ci ak daal laa ko ak père daal mënoon na gën a ñaaw li nañ sant yàlla nit lañ mënoon na gën a ñaaw li nañ sant yàlla waaw sama doom bi doom baal ma maa ngi ñëw di wax rek laaju mën a sax ni ma tudd. dama tiit rek dama tiit. ñoo tudd. Aliya Kamara. Aliya yow yaay Aliya Aliya bi mu bokkaloon classe université. yow ndeysaan Aliya dama la doon dégg rek mosuma gisee. il a fallu dix ans pour ñu gisee yow ndeysaan. Di moy véritable amour ah mbëggeel bu sincère yal na len yalla bolé ay yow macha allah. tata ma doom bi macha allah macha eh, allah maa ngi lay gërëm nak wax deug yalla sa taxaway rafet na ndax fi bo fi nekkulon te gëna ñaaw te gëna ñaaw te gëna tumu rank way heureusement yaa ngi fi yang ngi koy seet mo taxit sama ñaan bi yal na ya yalla la fal ci yalla sama aar len musal leen ci seytaane kontaan naa trop Aliou yaa ngi mën a gisaatee. saxaar jàmbaar Canal, canal àndandoo yu programme NDF Fonds vert climat bu coopération allemande GIZ Harmonia pour une maison qui brille Awalibiz Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. matidi.com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 yaay li ngay def wóorul yaa ko gën a xam. ci lan. waxoon naa la ñuy daje ci mbedd bi. mais yow man dinaa daje ci ay mbedd di wax te am sama kër gi ah non Alima yow tam xoolaatal li ngay wax yow tiit gi ngay tiit nii lan moo ko waral a ah? yow dajal sa papa sax nekk fa dem na def ji jeu de damam yooyu ak xaritam te lenn dinaa la ko yëgal du jinne du malaaka te du la lekk lan ngay ragal ni su ma fekkee dina ma def lu raw loolu. mooy yéen. yow xam nga ne bu ma gisee dina wax ba xolam jeex yow sama papa du ma mës a baal. dama ne lan nga fi def lu ñu lay baale defoo fi dara sa papa dafa war a tenir les en considération te xam ne Amadine mii moo raw sax kayaa fi daf la nax te moom mën na nax ku nekk parce que xelam mi dafa rëy. moom nag dafa jàpp ne man dama dem jaay samay terrain ma yoro juste parce que dama am faiblesse sama jëkkër. déggal ma waxi dof yooyu yow ak ni nga mel ci moom yow def nga ne lu mel noonu def. xanaa moom yaru la. waaw lu waraloon jotaay bi tey. sa papa faaleetu la kër ga nga nekk kenn respecté wu la teguñu la sax ngay nit sa doom nag màgg na léegi li ma gis mooy nga génn ci kër googu tas sa sëy bii. lan. Ah, yaay naa tey dama xaw a guddee. lan moo tax nga liggéey fi kenn forcé wu ma de man maa am affaire yu ma doon réglé. dama bëggoon ñu waxtaan. papa sëyiw ma démissionné wu ma su dee ci loolu ngay wax ma épargner la introduction ak développement ñu jàll ci conclusion temps amul. yaa xama di dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. du loolu cette fois-ci moom jum nga. man ma soxla woon pour nga jàppale ma. jàppale si lan. Euh, Amadine dafa am lu ñu seqoon man ak moom te jamono yii yii ma gis dalul suma xel ma bëggoon nag nga jegeel ma xalil rek. xalil pas Rachid xalil. Rachid jege nga ko ba pare. Khalil moo gën a jege baayam. léegi lu tax nga bëgg ma dugal ci loolu lépp famille boobu daal loterie la bu bii jàllu ñu essayé bi ci des. mukk famille boobu li ma gis temps yi doo ci dugg sëyloowuma la. c'est juste pour nga fréquenter ma ko benn moment loo xam nga wax ma loolu kese la te cette fois-ci. bëgguma de erreur. erreur bu demee nan. papa Amedine li def dafa grave. Amun solo. mën la jàppale de mais à une seule condition Rachid il ne sera pas impliqué Boullal, laal bul bugguma ko ko blessé bugguma ko ko takkal on est d'accord on est d'accord Pape mbaa jàmm man woote heure yi daf may tiital de jàmm rek lay doy toogal alors xam nga Fatma ma ma bi bien sûr C'est une voisine la woon quartier Suyka bëgg nga labat ko <laughs> mais pas bu à laaj affaire ban ak labat Yoy mo ngi am ba légui. Eh, xam nga ma la wax bëgg nga fréquenté ko et puis ça lamotanga tangga ma imposé jigen imposé wu ma la dara xale bi dafa baax dafa yaru te maag papa mi ngi entretenir ay relation yu baax e eh, ñu gë bëgg ko gën ko rattaxal te epi puis yow ak Fatma tollu ngeen ci sëy dem ngeen fu mu jëm xale yu la may

D'accord parce que nous avons wóorul sa bopp ou d' accord di d'accord nous def. D'accord, accord def. Calme-toi, Neila. Et arrête de t'en vouloir. Raphaël bu deewoon nak eh Toro Thiam Raphaël deewul mu ngi hôpital ñong koy fajj et eh, en plus ça va aller. depuis mu génn ba j'ai été trop méchante ak moom. euh yaa gën a xam ni Raphaël lool safu ko su génnee ngeen waxtaan en plus na nga doon nit. il s'en est fallu de peu pour ñu amaat benen mort. je suis désolée baal garaawul Moi aussi dama koy xalaat souvent parfois je veux juste delluwaat ci ginnaaw réparer mes erreur yep. il faut bien que nous fassions quelques erreurs fi passé wu kenn rafetul non mais ça fait mal su ma mënoon delluwaat bi ñu am 18 ans yor sama xel bi ma yor nii dinaa mën wax ak sama bopp wax ak yow ñëpp mën ma comprendre je suis toujours là gëmuma la woon je n'étais pas cru. lan gëmu woon lan. yaa Fateliko, fàttaliku suñu premier jour TD jour bi ngay toog sama kaw lal sama chambre jàkkaarloo ak sama ordinateur fixe bi. ordinateur bi. Ouais.

instant boobu ay xale la ñu woon ay étranger lañu won woon tu étais si gentil baax toujours souriant avec un beau sourire nan la la mënee won bañ autant mais bon bi nga ma waxee que danga ma bëgg Ma pensée ma l'université. Je université pas je dama Je da ngay juste pour ak et moi je voulais plus. ok mais Omar nak. Japonais. Omar mon vrai amour li ma gisoon dama foogoon ni Omar moy ma génn xelu xale may nax sama bop parce que ak caractère bi xadar bi xuloo bi je croyais que c'était ça la vision de l'amour et puis mon laa dit université jour pu tribus chez moi j'ai appelé. Je mais mais pourquoi le triangle. j'étais perdue entre vous deux je suis désolée. si je pouvais le refaire soit adolescente 18 ans à mon courage qui ki à Carlo à tey sa comme ni. wax ni que j'étais toujours aimé wax ça m'a ressenti toujours laaji mais ki lan la fi def papa ki teraw mako won suma keur na delu sa xaj fu mu joge won danga ma yeb wala lan bay teggi samay wax ha sumu ko fi fekkaatee dina ko ñuus ci biti yeen ñaar ñep nak alaaji ma nga jéggalu dootu fi duggati Wa yaay yow baa jàmm danga ma doon laaj sànq lu tax may supporter li may supporter lépp lu tax may nangu toog sama kër di subir humiliation yooyu sama tonton ngi sama kanam ci lan yow la yaay yow mii yaay yaa tax ma mel ni ma mel tey yaay mosoo maa jàngal ne jëkkër dafa war a respecter jabaram

yow la moom ak fukki jigen yi nga ko bokkal ak fukki dom yi ken xamul li mo taxone ma bañ Seynabou mais moi au moins j'ai eu le courage d'affronter mes problèmes ba ma ca